ce matin euh, dans une cérémonie solennelle de lancement de la campagne UU, qui veut dire que euh, si on ne détecte plus euh, l'agent pathogène donc, euh, qui donne le sida chez la personne, euh, cette personne ne peut plus, en tout contaminer. Je pense qu'il faut le traduire ainsi. Donc, c'est important, et je suis là au nom de M. le ministre de la Santé et l'Action sociale, M. Abdoulaye Youssa, et vraiment pour venir accompagner le comité national de lutte contre le sida qui est un comité multisectoriel et multidimensionnel et aujourd'hui qui œuvre depuis sa création euh, vraiment dans cette réponse contre l'épidémie parce que comme vous le savez le VIH-Sida a été également considéré comme une épidémie et c'est important le Sénégal à l'époque avait mis en place des stratégies des stratégies évolutives aujourd'hui qui nous amènent vraiment à, à ce grand espoir espoir pour toute la nation sénégalaise, mais particulièrement pour les personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. c'est un objectif qu'on s'est fixé. C'est pourquoi nous avons mis en place des stratégies, des, des voies également pour y arriver. Et je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal, notre pays, est cité comme euh, leader euh, en tout cas Et nous sommes sûrs qu'on va y arriver. C'est parce qu'il y a un fort leadership et une forte volonté politique au niveau de son Excellence, le président de la depuis 1998 euh, au Sénégal, l'accès aux antirétroviraux. Et donc dans notre approche au Sénégal, nous avons euh, toujours accompagné euh, cet accès euh, sénégalais aux avec des recherches. Et donc ce sont toutes ces différentes recherches qui sont presque 20 ans, qui ont que les personnes vivant avec le VIH, quand elles prennent non seulement leur qualité de vie est améliorée, elles ont une espérance de vie égale à une personne qui n'a pas le VIH, mais nous avons aussi, euh, ces études ont montré que ces personnes ne transmettent plus le VIH, ni à leurs enfants, dans le cadre de la transmission mère-enfant. C'est pour ça que nous travaillons avec euh, euh, les services de consultation prénatale pour que les femmes enceintes se dépistent et prennent des médicaments dans les pays développés, les, la transmission mère-enfant n'existe plus, mais aussi la transmission euh, sexuelle. Donc une personne qui a un partenaire séronégatif, si cette personne prend son traitement, ne transmet plus le VIH. Donc euh, on est parti d'évidence scientifique. On a euh, donné un, en fait, on s'est fixé un objectif ambitieux d'éliminer le sida. On a voulu construire positivement de l'espoir pour des personnes, mais également rassurer les populations des avancées qui ont été faites. Et donc, c'est comme Et donc, nous finissons, nous avons sank ci nassaran ci tour ministre de la santé action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr pour lancer campagne bu am solo boo xam ne dafa bokk nag ci li nga xam ne moom la ñu lal pour fexe ba sida sida nag damay wax ne épidémie bi ngeen di dégg noonu la demee woon nii la méttee woon ci année quatre-vingt ba fii ñu toll mais Sénégal musul wàcce ay loxoom ci ay stratégie mais également partenaires techniques et financiers yi tey jii mun nañ fi citer euh, USAID mais également organisation mondiale la santé ak bépp partenaire ak acteur yi bu ñu fàtte aussi acteurs communautaires équipe technique yi nga xam ne ñoo nekk ci région médicale yi ak ci euh, district yi mais loolu yëpp boo gisee tey ñu mun si egsi c'est parce que dafa am benn Euh, kuréel boo xam ne Sénégal daf ko teel mooy comité national lutte contre le sida bi nga xamante ne suñu sœur suñu xarit le docteur Safiatou Thiam moom tey moo ko jiite. nga xamante ne dafay def ay lu ñuy wax ay réflexion mooy day xalaat sur le plan stratégique supra stratégique cee ñu ko ba ñun ñi nga xamante ne ministère la santé action sociale mais yeneen secteurs yëpp damay bëgg toujours ñuy wax ne xëy na ministère de la santé action sociale dafa yore lead bi. mais kenn mënut a génne fii tey benn jàngoro wala ñuy wax benn événement de santé publique te awoo tey ci yeneen secteur yëpp. doo ko wàlle lu mën a nekk la c'est aussi simple que ça nit mën na dund ak sida bu fekkee ni mi ngi jël garabam loolu moo tax nag ñuy liggéey ak service de santé yi service du ministère de la santé may remercier ministère de la santé aussi ki taxawaayam parce que ah, bu ñoom bu ñu liggéeyul ñun résultat yi ñuy ak slogan yi ñuy joxe yëpp du jàll donc. Euh, pour que nit ki mën a dund ak doomu jàngooru sida te bañ ko wàlle il faut d' abord mu dépister wu il faut mu def testu sida fan la koy defee ci laboratoire yi docteur am moo ko koy kii ci centre de santé yi ci poste de santé yi xëy na aussi ci dépistage communautaire bi jël garab il faut que garab yi exister donc loolu aussi ministère moo ñu ci jàppale bu baax à travers la pharmacie nationale d'approvisionnement mais également à travers des partenaires yoo xam ne ñoo ñuy jàppale sida moom xam nañ ni garab yi ñaari partenaire ñoo koy jënd état du Sénégal mooy jënd genn wàll bi Fonds mondial jënd beneen genn wàll bi depuis euh, début bi fexe nañu gouvernement Sénégal taxaw ba kenn du fay pour jël garabu sida donc loolu foofu la ñu ministère daf ñuy taxawu ci indi test yi balaa nga naan naam ne fa balaa ngay jël garab nga def test ensuite euh, ci garab yi léegi nag ñu bëgg taxawaay bi aussi continuer ci aide à l'observance mooy lan loolu ci loolu la ñu jublu ci campagne bi mooy cible prestataires yi ñuy waxtaan ak malade yi expliquer leen loolu bu baax ba nga xam ne malaat bi bu génnee dootul xëy na am kersa ci li mu am sida waxtaan